waaye sëriñ bi ba mu waxee barki démb ci rajo bi démb mu waxaat ci déclaration bi bu ca yemoon keppit dëkk bépp yëg nañ ko ñëpp dinañ ñëw waaye lii dafa mënta ñàkk ci liggéey bi loolu nag mooy waral nuy soññee di soññee jëwriñ yii nga xam ne dañoo jiite ay mbooloo te nekk ci ay gox yu fasantikoo ci biir dëkk bi te jëwriñ ju ne am ñu nekk sa ginnaaw nga war a jël si fii ci wax ji sëñ bi wax yóbbaale ko ca ñooña boo dee mën caa wax ak ñoom loolu nag ñaari mag ñii rek bu leen tuddee dana doo ci joni sëkk muy sëñ Mbay Saar ak sëñ Daam sëñ Daam Surang danañ mën a yóbbaale jëwriñ ci des kenn ku ne xam ne buñ ñu leen tuddee rek dañ caa dugalaale képp koo xam ne jëwriñ nga yor nga daayira wala nga yor mbootaay goo xam ne ak ñoom di ànd liggéeyal sëñ Tuubaa te ñooña mënuñoo wuy si am ñu wuy si ñooña danañ mën a yóbbaale ñëpp lii sa rajo bi dana leen ko mën a wax su boobaa nag li ñuy fàttali di ko fàttali suñu bopp mooy liggéey la boo xam ne miin nan ko waaye nag waxtu wu ne moo indi lu bees te day gën a yàgg di indi lu bees rek ndax bañ ko daan tàmbali da daan dugg ci noor ñu dem ba si yàgg mu dugg ci catul nawet ñu dox ba si mu dugg ci xaajaayu nawet buñ ci àggatee mën nañoo nekk fekk ci digg nawet kon loolu nag buñ nee am mbale te xam ne mbale moo ànd ak taw la kon am na lu xew ndax bale ci taw yombut kon dana am loo xam ne dañ koy jiital njëkk mbale mi loolu nag lañ cey gën a soxla mooy boroom kër yi nga xam ne dañoo dëkk ci dëkk bi wala ñu am fi kër te nekkuñu ci dëkk bi waaye ñu am fi kër mbedd mu nekk ña fa dëkk sa salooy kër kenn ku ne la ngay xëcc ca mbedd ma su fekkee ne bàyyi nga ko defar ko bu kër yi ñëwee dana yomb ci ñoom te koo wax mu ne sama buntu kër am naa ci ñaari mètre koo dégg ma ngi koy xëcc man sama buntu kër moom sama ñaari mètre buntu kër yi nangam nangam kon ñaari mètre yooyu képp soo ko defaroon waaye defar ñaari mètre digg bi buñ fàtte defar ko dana yomb lool ndax digg bi ay nit ci moom yi ñaari mètre yooyu la nit ki moom ci buntu këram moom doo ngay sax ñax waaye digg bi moom ñax a kon waajo bu defaree ñaari ñaari mètre am rek ka ci su def ko rek ñiy liggéey ñoom buñ ñëwee dana yomb ci ñoom kon sëñ sëñ Mbaye ñu ngi leen di fàttaliwaat ñun ñëpp ñu xam ne liggéey la boo xam ne liggéey sëñ Tuubaa la te benn liggéey gënu koo ñor ndax gannaaw ba la ñoo màggal lañ koy def te ay gan di ñëw ñu war a fekk dëkk bi set ñun ñu koy setal ba dëkk bi ni fi ñëw fekk ko mu set war a noo takkuwaat te xam ne am nañ tawfeex tawfeex ju gën a rëy ji nu am mun nu ko amaat mukk ci beneen liggéey ndax liggéey boo xam ne sëñ Tuubaa ko sant mag moo fi sër mu doon daw fu mën a fekk sëñ bi bëggoon am digal dong ko ci moo taxoon di daw di xelu di dem gànnaar di dem céen ca jolof fu ne ma ngi daw nañ fekk fa sëñ tubaa dara wala lu ko dul bëgg a dégg ndigal rek kon nun sëñ tubaa nu ko digal te sëñ tubaa rek la ñuy wut wutuñu leneen lu sëñ tubaa am murit moom amul benn yitte ci àdduna bu dul sëñ tubaa soo amee bi bu amee beneen yitte rek ma ngay nax boppam ndax murit moom sëñ tubaa rek la mu amul leneen ci la ñuy tàmbalee ci nu yem kon noo ngi fàttali ñoo ñu ñëpp nu xam ne liggéey bi mi ngi ñëw di siyaare soxna asumee nga xam ne mooy jëwriñ ji nga xam ne liggéey bi ba mu tàmbalee ba léegi moo fii njëkk moo fii mujj ànd koog jabaru sëñ Tuubaa gu jigéen gépp mu nekk seen kanam waaye nangoo laxasaayu bu nee dañuy santaane nañ daje réunion bi moom day yandu si lu tax loola ngir ndigalu sëñ Tuubaa ni mu ko ñoree rek kon soxna si ñoo ngi bu baax la ñaanal nga yàgg fi te wér yaa ngi njëkku sëñ Tuubaa gi nga ko àndal nu dellusiwaat ci biir dëkk bi mooy ñi nga xam ne ñoo yor benn yi ak ña moom benn yi te sëñ Moodu ne ci seen kanam noo ngi leen di soññ ñu xam ne liggéey bii wajag wajag yi defaru ko waa ji yor otoom jox ko chauffeur ne demal ci liggéey sëñ Tuubaa ngay tappale wala ngay leneen ndax bañ a liggéey bëggoo oto ndax waa ji ni mu def ba oto di ko yor sëñ Tuubaa soo góorgóorloo mën ngaa am oto ba indi te am na fi ñoo xam ne da liggéey bañ ko tàmbalee ñu leen fi yebal tey oto yi ngeen di ñoo ko moom te passeport dong leen ko may ndax sëñ Tuubaa moom yow yaa yor ndab lu xat rek waaye ndab lu waay yor tamit dëgg ci yow mu ba mu ne sa ndab lu ndaw nag wala sa lu xat nag ah yaa sa bopp waaye sëñ moom yor du jeex mukk te da koy joxe rek liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey goo xam ne day ànd ak pas-pas te yàlla rek tax ndax yàlla kat sëñ Mor daana wax ne ne yàlla rek tax ndax yàlla lu mu taxut doo ca taxee dara doo ca taxee dara kon na yàllay tax la wax kon nag su boobaa borom oto yi sëñ Modou ñu ngi lay soññaat transporteurs yi buñ ne kenn yëguma ko daxal sa tànk ba àgg fa wax leen li sëñ bi wax bu benn chauffeur ne yëguma ko ne ko chauffeur sépp yëg bañ xam ne liggéey bi ñoo ko war a së génn ko dëkk bi ba mu dem fu sori waaye buubee fii dem ci ak kër gu may ma sarse ñax nga sottil ko ko muy gën a taxalaat dëkk bi buub sotti ci dëkk du setalub dëkk da ngay buub sànni ci àll ba dëkk ba set waaye oto yu ne li ci ëpp léegi dañuy def rek sama kàmb gi day taa defal ma ko fa nga sotti ko fa moom daa am suuf suuf ko sëkkee balaa am ñaari fan mun naa delluwaat ci dëkk bi kon mbuur misim daa wax ne nañ ko jëlee ci dëkk bi génne ko dëkk bi loolu sëñ bëgg kon nag sëñ moo di ngi leen soññ yi nga xam ne ku leen ne may ma sarte ñax mbalit rek ñu sotti ko nañ ko bàyyi te di ko yóbbu fa sëñ bi digle ndax am murit digal ndigal dong ci la mën a jariñoo képp mën ta amul benn murit mën a jariñoo ci lu ndigal danoo war a lëkkaloo war a ngoo dégg ndigal te bàyyi tere rek ku ko def ku ne yaa ngi ci yoon ku ko deful lool nag sa yoon bopp rek ngaaw yàlla nu yàlla defal tawfeex nu àgg ci liggéey bi nag ci jàmm ni sëñ bu bëggee te xam na ak bëggam dana am na jaar ci nun yàlla defal nu mu jaar ci suñuy loxo ba bëgg sëñ bi ci nun su su sëñ bi amee bëggam nag nun suñu bëgg danañ ko am ndax màggal gi nu dëgg ba noo ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa bu liggéey bi jeexee kenn ku ci ne la nga bàyyoon ci ay soxla na la ci sëñ bi wuta fajal la ko ba dootoo soxla dara yàlla moom du jeexal dara boo déggee ñaan ee eh, googu ñaan dafa rëy kii ñaan daa xamut yàlla waaye yàlla ku ko xam lu ne nga koy ñaan ndax moom jeexalu dara te moo nekk fépp yàlla nekk fépp di te moom du jeexal dara kon noo ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa màggal gi nu dëgmal yàlla nu ci yàlla yóbbu ci jàbb liggéey jàmm te su màggal gi ñëwee xéwal gu mosaam yàlla yàgg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatu jërë ngeen jëf ñu sof suñuy kàddu ci foofu sëñ Mourtada si suñu jëwriñ ubbee te xàll-xàll yu yaatu lool lépp nag joy jëm ci ndigal lu nga xam ni mi ngi tukkee ci suñu sang bu tedd bi di cheikh Mouhamadul Muntaqa moom cheikh Mohamad Bachir di jëwriñu xaadim rasul ànd ak bokkam yu tedd yi di sëriñ Siidi moom sëriñ Abdou Lahad mi mu dénk dëkk bi wande feggoo ak rakkam ji di Cheikh Mamad Bachir moom sëriñ Abdul Xaadar di ay loxoom di ay tànkam di kàddoom ñu wëlbatiku yëkkati ndigal lu nga xam ni moo jiitu ci liggéey yu màggal gi sëriñ Cheikh wax na ko démb ci wetu Cheikh bas ne mooy ndigal mooy taxawaay bi jiitu ci wàccaay yu màggal gi muy seetal dëkk bu tedd bi loolu nag dama ci taxaw rekk wax ni cheikh mouhamadul muntaxa mi nga xam ni dafa lëmoon bëgg-bëggam lëm yéeneem lëm pas-pasam lépp dëxañ ko ci jëfe ndigali sëriñ Tuubaa yi te loolo da koo jaarale woon ci waajuram yi fi jaaroon xalifaam yi fi jaaroon ñoom ñëpp ndigal lu ñu mas a tobbi rek mu jaaju ndigal loolu jëfal leen ko jëmm ju tedd jooju nag moo yëkkati ndigal nag jaarale ko ci jëwriñam yooyu lépp mu tànnaat njabootam gi jiital ko ci biir ndigal loolu ngir ñu jëfe ko yaakaar naa ni ku daan jëfe ndigal nag bu demee ba yëkkati ndigal baaxañu ko ñun taalibe yi war nañ caa góorgóorlu jaayantewaat ak yàlla jaayante ak Sëriñ Tuubaa jaayante ak moom ba ndigal loolu ne mu ko bëgg ñu jëfe ko ñu yëkkati kàddoo ki cant nag ak ñaan yu nga xam ne sëñ Mourtala ju na ko léegi mu jëm ci suñu jëwriñ ji na ko ñëpp àndaat dugalaat suñu yéene ak suñu mébét yëpp ci ñaani sëriñ Mourtala yooyu te béral ko yàlla bàyyil ñu ko fi sàmmal ñu ko fi wéral ko dolleel ko bàyyi ko kattanam akum xelam ak yéeneem ba ndigal lii tukkee ci sang bu tedd boobu di yaakaaram tey ëllëg yàlla defal ko tawféex ba loolee mu sax fi moom it mu sax fi ñu ànd di ko matale. sëñ Mourtala wax na ko léegi sëñ Omar kan Balaye sa di ko waat taalibe yi rek ñoo ca nekk mooy borom mbooloo yi mooy chef de village yi mooy délégué de quartier yi mooy mbooloo yi nga xam ne ñoo daje ci daayira ak association yi ñëpp dëxuñu ca biir mu mel ni kon loolu la mu laaj seetaan nu ñuy songe mbër mi rek organiser wu rek moo moo moo ko laaj. loola nag mi ngi tàmbalee ci kenn ku mu ci doon ci ñun ñu tàmbalee ci suñu bopp lépp lu ñu am ñu def ko ci moo xam yéene moo xam doole mooy am-am ñu def ko ci soññ suñu dëkkandoo yi kenn ku nekk kam feggool lu mu am mu fekk li ci la ci lu ñu def ko ñu ngi koy junj léegi génn li ci biir kër yi bale ko génn ëtt yi génn pénc yi bu ko defee boobaa mbale mi set wicc kenn du jëggaani wala ngay jóge ci gox bi ngay jëm di dem feneen noonu ko sëñ bi xalaatee ko teyit muy lu leer ñu def ko defati ko fukki at ak juróom ñu di ko def mani ñuy song mbir moomu di ko jàggi di ko daan lépp ci baaxub sëriñ bi yaakaar naa ni war naa mën a yomb sëñ Mourtala nag amul ku mu tuddul ci ku nga xam ni war nga cee jëf wala war nga cee amul taxawaay mi ngi tàmbalee ci daayira sëriñ Tuubaa waa kër maam Cheikh Ibra Fall jaar ci këri Cheikh yëpp bàyyiwul kenn bu xisee tudd maam Cheikh rek tudd na Cheikh yëpp bale la ñuy wax lu génn am na fu ko yóbbu am na fu ñuy jaar yóbbu ko fa ñu ànd ko bu yar organiser wu rawatina mot jóg yàgg chauffeur yëpp ak borom charrette ku mu doon ñu tënku ci fa ñu leen yóbbuloo mbalit mi du caagancu jële naa ko fii àlla ñag nee na sottil ma ko fii ma sëkke ko fi nga sëkke ko fi wala nga jóg ñu ne la yóbbu ko fa la nga riir wuti wet gu nga xam ni dañu ko aaye te loola mooy wet gii jëm ci hôpital Cheikhul Khadim bii nañu bàyyi di fa yóbbu mbalit sëñ bi aaye na ko bu dul tey aaye na ko démb at mu ne da ko daan aaye ba fa hôpital bi nekkul wànne bii yoon la raw te loolu joxe na ci ndigal ba ci comité d'organisation bi sëñ Jiili Lo mi nga xam ne moo jiite euh, li nga xam ne mooy relation ak force de sécurité ak défense ak administration wax nañu ko ko daf ñoo bindloo daf ñoo soññuloo comité bi mu tàmbali sëñ Ousmane mi coordonnateur bi jaar ci sëriñ Abo mi nga xam ni mooy secrétaire général bi nañu fexe ba force de sécurité nañu ànd ak mbale mi encadré ko tey danañ ko def danañu ko def bépp chauffeur bu nga xam ne jaar fu ñu la wala nga jëm ci wet gu nga xam ne jëmlawuñu ko ñoom nga koy jànkoonte te bu boobaa yaa ngi yàq ndax la ngay jëflante ak ñoom ñu di la téye yaa ngi yéexal liggéey bi sëriñ Tuubaa yaa ngi yéexal liggéey lii li laa wërsul nañ ànd akub yar na nañu ànd akub pëstéef te ndigal li ni ko sëriñ bi xalaatee muy nañu ko defee nii muy lu leer lu mu waxtaanee xalaat ko te lépp mas a rafet ba ji nañu góorgóor ba loolu la ñu tënkoo ko ci loolu wax ji gudd gàtt lii rek la sëriñ bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di soññaat ñëpp ci liggéey bi te ñu dollee ñaanalaat suñu sang bu tedd bi topp ci ginnaawam bëggam na doon suñu bëgg yéeneem na doon suñu yéene ndigalam nañu ko ne dakk rek ne loola rek la ndax ndigal la mooy ndigal tukkee Cheikh Mamadul Muntaqa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu xanaa kon nee ni def mooy dellu soññiwaat suñu bopp di soññiwaat ñi nga xam ne dañoo ànd ak ñoom liggéey bi ñun nag suñu soññee du sañ duñ ko sañ lu dul ñi nga xam ne bii dañoo dénk suñu def jëwriñ ci wàllu liggéey bi Sëñ Tuubaa bi muy suñu bokki ñawkat yi ak fu ñu fi mën a ne yóbbaale ci it kàddu siini jëng mi nga xam ne mooy délégué marché yi ak délégué marché yi fu ñu fi mën a ne nañu xam ne li ñuy taqal ak li tax nit ñi setal ci nun la ëppee marché yi ñoo gën a tax ci dëkk bi marché yi moo waral setal gi lu fi tax fu dara taxit la ko taxal marché la jóge kon nun waa marché yépp nañu fexe bu bu àjjuma jaa yi nga xam ne moom la sëñ boo xam ne mooy liggéey bi benn marché benn délégué marché bu dem na ko teel a wax ay ñamu seqal liggéey ba nga xam ne du nekk ba ajjuma ba leen koy wax alxames ku yor ñaari dépassé jaambur bu ñu dikkee nga jox leen ko xamal ko ne ko ajjuma du nu ubbi su ko defee ajjuma di marché yëpp dañ koy tëj daan ci defit motuwaay yu mat sëkk service de ordre bii nga xam ne moom àll ña ngi di wax noonu at mu jot ñoom la ñuy àndal fas yéene benn marché kenn du tijji ku tijji nu jëflante ak yow co loolee duñ ci dellu gannaaw mukk ndax ki tax nu tal ko bu ko yitte woo warantunoo amul benn yitte sëñ Tuubaa mi tax nu tal ko bu nu yitte woo warantunoo am benn yitte yitte sëriñ bi dong mooy suñu yitte ca yitte sëñ bi doon suñu yitte nag ci sunu aajo tey di fajoo suñu aajo ëllëg ci lay fajoo kon nag nan leen ay ca murit yooyu nga xam ne mooy jëriñal murit ay ca murit ay ca murit jëf jël kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara ni ma dégg sëñ bi wax ko ko léegi sëñ Moutala du dëggoo ngi noonu kenn deful kenn dara waaye kenn defalul kenn dara lu waaye def boppam jëf jël tayeer yi nag fépp foo xam ne jawriñ nga fa nañu soññi ña nga xam ne ñoo di la ànd àndal liggéey bi nu fas yéene bu nu tàmbalee kenn ku ne marché ba nga ne ñi nga àndal nañu xëy ca marché booba fexe ba marché ba set ñu génn ko ca bitti waaye bu marché ba setee ba noppi nag dëkk bi daa war a set nanu àndaat ak mboole mi soobu ci biir dëkk bi noo ànd setal dëkk bi sàkku ci ngërëmal suñ Tuubaa suñ defaru tey ëllëg yëpp nu fasaale ko ci ca jiitalte nag fond gudd wow sëñ daqaa ca boole ci suñu bopp moom bu soonam guddee jiite aajoom ci nun ak yéeneem ci nun dana matal suñu yëpp mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci ndigal Baye Dame Sorokh ak ndigal sëñ Issa mi nga xam ne moo féete ci Daaru Minam fi Baye Serigne danga nekkoon di sàkku ci mboolem itam ñëpp ñaan Baye Serigne suñu borom yokk ay leeram ca barsàq ndax ku jàmbaar la woon ci liggéey bi ñëpp xam nañ ko ci liggéey bii ci Pastef ndax mooy njëkk a tàmbali mooy mujj a bàyyi te du ne sonn duna tàyyi naa kon na ko ñëpp ñaanal suñu borom yokk ay leeram ca barsàq ñun ñii fi des tam suñu borom bàyyi ñu fi ñu yàgg liggéey sëriñ tubaa di ñaanal sëñ Seex Mbàkke mii suñu borom doolu kàttan moom it ndax lii ñëpp wax rek mooy dëgg ñëpp li yéene jàmm léggéey bi muy liggéey noppalu guddi noppalu bëccëg bu seen ànd koog taalibe yëpp kon naka taalibe yëpp ñaar moom mu yàgg fi son bi nu féete nag muy daaru minam ci ndigalal bàyyi daam sorog mii nga xam ne mooy sunu jëwriñ ñu ànd ko ak sëñ Moustapha Moussa ak sëñ Issa mais sëriñ bi boolenu ak Moustapha Jang mi nga xam ne mooy doomi sëriñ Jang te yàlla na yàlla defal ko mooy mu am kàttan gi li bàyyam amoon mu am ko ci barke Seexul Xadim nu fas yéene ànd ci son daaru minam bi séq ko nag ak ay jëwriñ yoo xam ne jëwriñ yu mat jëwriñ lañ man ñu fuuf ci liggéey bi ëpp ñum xel waaye dafa tolloog nag suñ borom mooy seet ne mbooloo bu ñu àndee faaw ñu jël kenn jiital ko waaye jiital googu nag du xam-xam du ab jàmbaare du lenn suñu borom ma ko dogal waaye dangeen xam ne yéen ñii ma seqal liggéey bii mu mel ne soppee sëñ Basiru sëñ Mouhamadou Diop mi ngi nii ànd ak mbooloo mu bari soppee sëñ Abdou Akim topp ci moom it sëñ ñing la ak mbooloo mu bari soppee euh, li jal bi moom it muy sëñ Basiru Ndiim ak ñim àndal demaat ca la bu sifaa yi mooy Moodu Faala ngi ak ñim àndal ànd ak Moustapha Diak moomu kon nan boole suñu loxo boole suñu pas-pas fas yéene ànd ci ndigal lii sëñ bi wax nu fas yéene ñun ñu takkatoo bu nu takkatoo boole suñu bopp fu sëriñ bi leen tàmbalee fii ñu tàmbalee fa fu mu ne nañ fa yem ñu yem fa fas yéene ànd ak moom ba liggéey bi mat fu mu ñu yebal nag nañ fa dem daaru mi nem dong du suñu liggéey dëkk bépp lañ war a bale ndax ñooy bàyyi faale dëkk bi comme ñooy bàyyi faale dëkk bi nag ñun ñoo war a bale dëkk bépp gis naa ne am nañ jafe-jafe ci oto yi waaye teewul nag na ñëpp ñaan rek kenn ku ne am war waaye goo xam ne buñ ci àggatee bu sëriñ bi ne bisimilah nañ tàmbali ba mu ne jërë ngeen jëf kenn ku nekk delluwaat ci këram ndax suñu yitte mooy yitte sëriñ bi rek noonu buñ sañan li sëriñ bi santaane waxtu bu ko santaanee dañuy séen ci kanam la nga xale nag dañ ko teet ci dëkk bi rek buñ sañan duñ ko jege fenn suñu njaboot du ko jege ñu ngi siyaar yi ñëpp tey jégglu tey jéggale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu soxna Astu mbakki nee na mi ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di leen xamal ne rek kàddu yi nga xam ne moom lañ daan wax jamono ju nekk moom lay fàttaliwaat rek te mooy soññ ñi nga xam ne ñoom la seqal daayira Kanzul Muhtadina ñëpp nee na mi ngi jox ñëpp ndigal di leen soññaat ñu defe ko nan ko daan defee ne ci ginnaaw sëriñ Cheikh ànd ak moom ba liggéey bi jeex nee na mi ngi ñaan itam nu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin tey sëriñ bi nangul nu suñuy jëf nee na mi ngi ñaan nu bokk ñaanal sëriñ Muntaxa suñu borom gën ko fee yàggal ñaanal sëriñ Cheikh mii suñu borom kàttanal ko ba li mu yéene ci liggéey bi mu amee ci lu kawe njortam nee na mi ngi sant ñëpp tey soññu ñëpp nu fanoo ko nan ko daan defee jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi dellu di leen nuyu rek ni leen daan nuyoo ndax daan daan nuyoo bi ci turu Cheikh Mahamadou Muntaxa mi Sëriñ Tuubaa mu jaar ci Cheikh Bass Abdou Khadre ñu nuyu leen ko te nuyoo bi dañ daan jiital soxna Asu Mbakke mi nga xam ne mu ngi jataay bi di sunu kilifa di sunu waajur di sunu jëriñ ci liggéey bi ba nuyoo soxna Asu ba noppi nag dañ laan wax ne ba ñu njëkkee jox ndigal li dañoo waxoon ne sëñ Muntaxa wax ko waxoon wax ko Cheikh Basiru Cheikh Basiru wax ko ne bala ñoo def dara naa dem ci fi nekkal Cheikh Ibra Fall jotti ko am nuyoom wax ko ndigal li ma woo njabootu Cheikh Yoro gépp ma door a dellu si wax ko murit yëpp nu bokk ko waajal ndax nu defe ko ni mu waree ëpp ko doole loolu nag ci la ñuy delluwaat rek di nuyu sëriñ am di mu Safa Fall moom sëriñ Modou Mbenda mi Cheikh yëpp la ci suuf di ko siyaare di ko jottali nuyu yëpp sëriñ Mountakha di ko wax ne ko sëñ bi itam waxtu wu nekk wax na ko keroog fii wax na ko démb itam sëñ am di fan yii rek dafa am bis mu xëy ak xaal bu metti wax sëñ ngoon na mu wooma mais nañ ko waxal sëñ Muntaxa ne ko xam na ne liggéeyal ko moo ko bàyyi ci kaw suuf liggéeyal ko it la bëgg moo la ci la fas yéene nekk fekk mu defee nekk kon daa bëgg sëñ Muntaxa di ko liggéeyal loo waxtu nekk ba noonu la ko waxee sëñ bi sëñ bi it wax ci rëy ci moom lool ba yóbbi ko àll mu jàpp ko nangu ko moo xam ne nangul naa ko lépp wéttali ko naa ko bi kon may nag mu liggéey bi ma ko njëkk a wax mooy ginnaaw yéen a ngi sóobu ci mbale mi maa ngi koy yeesalaatal di ko teg ci loxoom mu ànd ko njawtu Seex Ibra gépp ma waxee ko noonu sëñ Gunda ma waxee ko noonu ma waxee ko noonu sëñ sëñ Amdi maa ngi waxee bëgg ñu ñaanal mbokkum taalib bi moo xam ne maa doon jëriñam muy sëriñ Cheikh Diouf sëriñ Mbaye Sarr mii mi ngi ko wax keroog ci bis ni tey bi fi nekkee Cheikh Diouf taalib bi sëñ Abdou Latif nekk ci marché bi waaye doon jàmbar lool doon jàmbar ci marché bi doon jàmbar ci daayira bi mu bokkoon mooy dépôt pharmacie yi waaye doon jàmbaar ci lépp lu may def mu ne ci sama wet mbare mii bu ma saan di ñëw mook si Mbay Saan ñoom ñooy ànd sañee marché ba mu àgg bu taxaw ci marché bi ñu def liggéey ko ba mu àgg bu ci jógee di ñëw toog ci sama wet di ne laxasaayu nooy ànd ba marché mbay bi jeex yàlla dogal la ma wàcc ma mit na ko ñëpp ñaanal ak ku ci bokkoon wala ku am ko ku la jege te nga bokk ci ñu ñaan sëriñ Touba teral ko teral ko te lam diggee woon ci ko ko def seetal Touba xasab mu mu jox la këru àjjana ñoom ñi ni jiitu nañ jot seen jot seen kay àjjana ba saa suñ demee fekk leen fa yàlla na yéex yàlla na fe nekk àggal liggéey bi noonu nag laa leen nuyoo ci gan ñi am naa fi gan ngoo xam ne dinaa ko nuyoo léegi ñoom muy sëriñ Maxafaal mee toog sëriñ Maxafaal dafa boole ay cër yu bari ndax mën naa doon jëriñu sëñ am di di fi nekkal Baye Fall yi jataay bi ndax tey sëñ am daam lew sar ñëwut sëñ daama sar ñëwut sëñ Cheikh Fall ñëwut sëñ Maxa Fall ñëw te jëwriñ sëñ am di la ñu yàgg kër sëñ Modou Mbène yàgg faa doon jëwriñ ba tey mooy mu jëriñ am di yàgg moom laata sëñ am di toog fii jataay bi te itam fekki jataay bii moo ko taxoon a toog ndax ma nga dëgg ci jokkal tab bi waaye toogoon na fekkee jataay bi fekke waxtaan bi ba xam ni ñuy waaje ak nu mu ciy sooboo soobu jaan ak noonu soobu nag wax naa ko Modou Habib léegi Modou Habib mooy jëwriñ yi ñu yor benn gi naa ko booleeg sëñ Maxa mais da sëñ Maxa waxtu nekk ay bennam di nekk ci liggéey bi waaye dafa am jaayantewaat ak soññ bu bees goom boppam fas yéene ànd ak liggéey bi dama bëgg mu boole ko Modou Habib ñu ànd ak ànd ak benn yi mu am gum ñu taxawee mi ngi otoom buñ ci àggee danañ ñëw kër sëñ Tuubaa bañ joxe oto yi mu ànd ak otom jël otom ne ci biir terrain bi ba ba saboor bu nekk ci lañ ko nekkloo mu xam ko oto bu ci nekkul dana xam ne kii nekkul ci lañ ko nekkloo dana jël numéro bi indil ma ko ma lijjanti ko borom lijjanti ko moda bi moda bi bi ngi nii bu réunion bi tasee naa ko nuyoo la maxa maxa dana am taxawaay bu yaatu ba mën a taxaw ci liggéey bi loolu laa lay bëgg a nuyoo la maxa kon nag bu loolu jàllee ay kàddu yu soññaa soññee bi nag li ci wax doy na sëkk waaye soññee doy nañuy fàttali ko rek li doon mooy taalibe Sëriñ Tuubaa te kenn ku nekk la ngay bëgg a doon mooy taalibe Sëriñ Tuubaa taalibe Sëriñ Tuubaa nag dafa am nu muy mel ba tax sëriñ bi nangul ko ak taalibeem ndax nangu sëñ bi googu mooy li am solo waaye nag taalibe Sëriñ Tuubaa rek laa du tax sëñ bi nangul la ak taalibe dafa am dafa am luy tax nga doon murid saadiq te loolu sëñ moo ko tëngal boppam sawartu saadiqil murid bi ixtisaar sëñ bi way na ko muy ñeenti way moo tax mu ne arbaatun a arbaatun nasamtuha xawfa ixtiraar mu a ñeent la yoo xam ne dama koy way dama koy naas ngir bañu ñu wóoru ci ni ñuy doxee gannaaw sëñ bi dana bañul wóoru koy nan nan ko bañal suñu bopp day taxa doon murid saadiq nu di ko def di ko wax di ko yéene loolu la sëñ bi daan wax maa ngi leen dégg ngeen di yéene lu baax di ko wax di ko def kon nag li ak murit naan koy yéene ci xol di ko wax di ko defe ba doon ay murit saadix te la sëñ bi waxoon def ko te sëñ bi waxoon mooy na ni bëgg sëñ bu wér naa ni topp topp ndigal yi bu wér te te bàyyi gaaral ci lu ndigal lu lu ne ñu xool lu taxoon sëñ bi wax ko lu tax sëñ bi def ko ak dëkk bi di laaj dëgg bi laa laaj dëkk bi lan laajoon démb la laaj tey moom la laaj boo liggéey ndax la ko borom sañ ca woon démb noonu la loolu ba àdduna dox loolee la bëgg ñu ku fi nekk jaar ci tere yii mun taxaa bëgg ñu sàmm ko ormay dëkk bi ba mu dénk ko sëñ mu sëñ Amdi Mbenda sëñ Amdi Moodu Mbenda ñu dénk ko Baye Fall sëñ daam wax ko démb ca réunion bi lool faw ñu di ko fàttali ko faw ñu di ci ko faw ñu dox dox yéen woowu mooy dox ma dox yéen ma di saalix te sëñ bi dëkk bi bi mu ko sañcee bëggoon a rawale njaboot gi ak rawale taalibe yi moo taxoon mu sanc ko ba mu demee ba mënatuñoo yem ci benn dëkk biir dëkk bi mu tasa tàmbale tasaaroo ci bi mi moo mu dem Jolof gannaaw ba mu ñaanee boromam génn dem liggéeyi li ko te wax ji ñu wax coowoon ji jiñ ciy wax waxtu wane ñu di ko waxaat yonente bi feeñu ko ci xalwatu ba mu xamal ko ne ko yaari yëf dana am ngir natt bi door egsi mën a sa kaw moom ngay mooy nga génn dëkk bi dëkk bi sëñ soo borom ñongal na ko fekk yaa ngi yaa ngi fi natt bi doo egsi ci kaw ak seen yaay sëñ Moussa bi génn àdduna ñu waree la sëñ Moussa bi génn àdduna moom itam mu génn dëkk bi dem Mbacke Bari Jolof ngir dëkk nattu bi ni ngi fi bi mu egsi ci kaw la waaye li tax ñu xam ne loolu wér mooy ginnaaw moom bis bi mu di woon ñem ci nattu metti boobu juróom-ñetti at sax la ñuy wax da cee gën a metti ci la nekk Gabon waaye ba ni ba ni fi jógee ci nattu boobu la nekk mooy ci loxoy tubaab bi la nekk waaye muy fàttali ko bis ba mu tàmbalee natt boobu mu di ko sante yàlla ba mu toll ba muy màggal gi tey ko xam na ne kon noonu noo ko gisoon mu moom xamee ne ab natt yi dem ndax métti bi dana ci kawam waaye li sëñ mesure wax ba mu jógee jàkkaarloo gi muy jàkkaarloo ak payam moo tax yëgul woon métti nattu bi kon gi te li ni ko ni mu ko doon jàngalee mbala ma ngi di ko jàngale ginnaaw àdduna si taxu ko woon a jóg luñ ko fay luñ ci gis ci àdduna lu mu bari bari ndab lu fees la ba tóoroo la tóoroo ca naaj bi ci wet gi rek may li feeñ ci àdduna waaye àll gu taxoon a jóg kon nag war na noo mën a sant yàlla war noo mën a dalal xel waaye war na noo mën a góor góorlu nag ci lim bëggoon nu bëggal ko nekkal ko ci te lim wane woon mooy yàlla yonent bi rek siraatal mustaqim mooy dëggal goo xam ne danay jóg jub jublu ci suñu borom jublu ci yonent ba bañ bàyyi caaxaan bàyyi fo loolu leen di koy bàyyi ci suñu xel waxtu wu nekk te loolu mooy li sëñ Muntaxa di wax waxtu wu nekk waxtu wu ne mu wax ne dëgmal sëriñ bi mooy dëgmal yàlla wan ginnaaw adduna man wan ginnaaw adduna du tee sol mbubb du tee am kër du am soxna am li am waaye sa xol bu ci bëgg loolu yàlla bu ci sëriñ bi loolu mooy wan yàlla ginnaaw lu adduna wan ginnaaw lu aju adduna dëgmal sëriñ bi ak dëgmal suñu borom loolu rek mooy li am solo nan koy bàyyi xel nan ci dëgmal nan ko dëgmal nan ca nekk te nag loolu buñ ca nekkee suñ xel maa dal bu baax sëñ Muntaxa itam lii muy soññee nga xam ne ni ko sëñ Muntaxa waxee woon ni ko sëñ Mortala mu sëñ Muntaxa waxtu wu nekk amul seen soxla su dul xettali bi nebi li ci gënoon a jafe lu ci waroon a gën a jafe ci ñoom lu gën a metti mu jéem ko yenu wan leen na ci gën a yomb yoon wa te wane yoon wi rek mu yitteem kon nañ jéem a gis yoon wi jéem yaa jaar loolu mooy li ñuy jëriñ tey mooy li ñuy jëriñ ëllëg nañ ci góorgóorlu bu baax kon nag lii tomb bii te daaw xam waxoon ne ne setal gii kat lu ñëwar a ñëpp la njëriñ li daj ñëpp la waaye yéen la ko yàlla jagleel yéen la ko sëriñ bi jagleel yéen kuréel bi tax saytu mbali mi kon nan ko xam te kon moom sax daa waxoon na ngeen jàpp bu baax te góorgóorlu ci bu baax kon nan ko jàpp bu baax te góorgóorlu ci bu baax te xam ne liñ bëgg lépp te lañ koy mën loolu bëgg lépp danañ ko jàpp am bu bu liggéey bi yombee rek loolu bëgg lépp dana yomb ci loolu mooy li ndi ndénkaan bi mooy ndigal li kon nag ndigal laa nga na ñëpp waaj na itam ci soññe bi loo xam ne àgg guñ ci woon waaye danañ ci àgg mooy dëkk yi sëñ Tuubaa yi dëkk bi waxoon na ko ci yoon wee waaye fu ci na war dem ndaw dana fa dem fu ci ñu ko war yëg danañ ko yëg ndax dañ ko def soññe yi ci rajo bi ñu di ko dégg danañ ko def itam ay émission danañ ko def itam ay cassette waaye lépp nañ ko xam nun ñu ko moom ci léegi li àlla euh, wax léegi teew nañ ko wax rek nan ko wax nan ko def junee nan ko wax moo koy njëkk kon nan waxtaane lu koy tax a kenn ku ne jàpp ko kenn ku ne fasoo te ku di di si jëwriñ ci sa bopp di jëwriñ ka nga dendal ka nga dendal di jëwriñ kenn dendal diir bu gàtt ñëpp jëkku ñëpp jow ñëpp taxaw lu koy tax a baax lu koy tax a yomb ñu def ko loolu moo laa waxam biig dinaa ko waxaat ne bale moom jële fii yóbbu fii taxut mu set jële gerte tonni ko yóbbu rek mu dem rek mooy tax mu set kon nañ ko bàyyee bu baax nañ ko bàyyi xel oto yi doy génnukaay yi doy ak jëfandikoo yi doy ak luy tox mu yomb lu ko lu ca waay mën a jàppe jàppe ca ba ba loolu yomb ak àggoon na ci nag ci li ñuy sàkku it yàlla duñu ci dimbale gannaaw sonal góorgóorlu si bi dina ko dimbale mooy jàpp nag liggéey bi ndax liggéey bi daan doon juróom-ñetti fan du mujj mu doon juróom-ñaar mujj mu juróom-benn waaye at yi yëpp buñ ko xamee mooy benn bis la ñuy bale dëkk bi lépp doon jal ñaari bi dañ koy tonni te dañ ca tonni bi ñetteel ba ñu tonni ko ñeenteel ba ñu ne defar ko juróomeel bu ñu tasee bar yeewi ko noonu rek lañ koy doxalee noonu lañ ko doxalee waat buñ ko doxalee lépp dina jàpp kon nag ñu tënk noonu ñu dégg yóbbu loolu te fasoo ko te waajal ko ba tey dellu si ñu dajewaat fi ay ak soññewaat yi